entrée des stocks partagés de petits pélagiques. Engagement 7. Faire une évaluation indépendante par la partie sénégalaise de l'accord de pêche Sénégal-Union européenne avant toute négociation pour le renouvellement de nouvel accord de pêche et partager les résultats avec les parties prenantes, professionnels, administration. Engagement 8. Améliorer la représentativité des professionnels de la pêche dans les instances consultatives, CNCVM, Engagement 2. Mettre en œuvre les standards internationaux et bonnes pratiques de transparence. Engagement 10. Mettre en place des mesures de mitigation des risques liés à l'exploitation du pétrole et du gaz et attribuer au secteur de la pêche un pourcentage issu de l'exploitation du pétrole et pour appuyer la gestion durable des boucheries et les mesures de sauvegarde sociale. Engagement 11. Institutionnaliser la journée nationale dédiée au secteur de la pêche. Engagement 12. Tenir un conseil présidentiel pour la pêche et l'aquaculture. Engagement 13. Promouvoir la mise en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique.

mais ñun ñi nga xam ñoo seq napp bi nañu leen toog ñu xool naka la ñuy càmbaree lii di jafe-jafe napp bi booba nag ci ñu yor napp saxaar bi ak ñi yor napp bant yi gaalu bant yi ca mbuur ak ñi nga xamante ni ñooy borom xam-xami géej ci wàllu nasaraan ak professeurs yi ONG yi ñi nga xam ñoo yor environnement AMP yi dajaloo na nañ leen xalaat naka lañ war a def ba napp ji mën a suqali ci loolu ñu loolu ñaari fan waxtaan ku nekk indi ci xalaatam ñu jël xalaat yooyu yëpp daal di koy boole daal di tënk ci fukki ak ñett fukki ponk ak ñett yooyu nag ponk bi ci jiitu ponk bi ci jiitu mooy jàpp nañ ni jën woowu ni ñu koy nappee dafa jéggi dayoo ba jën woowu mi ngi ci yoonu jeex ci kon bépp li de pêche boo xamante ni dafa jëm ci napp jën woowu licence yooyu nañ leen ko dakkal beneen bi ci topp ñu ne nañu leen jàppale ci li nga xamante ni mooy koomu géej gàncaxu géej écosystème bi ñu fexe ba sàmm ko aar ko fexe jël ci ay mesures ba nga xamante ni géej jën yi seen dëkkuwaay yi nga xamante amoon nañ ko ci biir géej dëkkuwaay yooyu dellusiwaat ba jën mën a amaat ci biir géej kon ñu defaraat li nga xamante ni mooy biir géej gi suuf géej gi gàncaxu géej muy fond marin yi ñetteelu ponk bi ci topp mooy ñu ne ñu daal di càmbar li nga xamante ni mooy lépp bépp matériel bu nekk ci biir géej gi napp nañ leen ko càmbar muy bateau bu nekk ci biir géej gi nañ leen ko càmbar muy gaal banque bu nekk ci biir géej gi tamit dañ leen ko càmbar ñu gëstu ko xool ko xam lan moo ci nekk ñaata bato ñoo nekk ci biir géej gi ci napp ñaata gaali bant ñoo nekk ci biir géej gi di ci napp dégg nga tamit ñu xam nombre bato yi nga xamante ni dañoo nekk ci biir géej gi tey at a ngi ñu di ko laaj ba léegi mënuñu koo am. Euh, ñeenteelu poñ bi ci topp. mooy ñu gën a li nga xamante ni mooy sàmm géej ndax gis nañu suñu géej ay bato dañu ciy dugg di ci napp ci nappin wu jaarul benn yoon te duñu gis benn sécurité insécurité bi nekk ci biir géej gi maanaam gisuñu kenn koo xamante ni dem na di toppi bato yooyu kon sécurité géej gi aar géej gi sàmm ko ba xam ñi ci nekk di napp ñan la loolu tamit dafa nekk loo xamante ni ñu euh, ñoŋal coalition di ponk bi nga xamante ni mooy ponk ñeenteel euh, juróomeel ponk bi mooy ñu daal di jël bi nga xamante ni nag mooy yaboy ak kóoba nga xamante ni mooy jën bi nga xamante ni ñun Sénégal jën woowu moo ëpp si li li ñuy jën woowa ñu fexe ba jën woowu di des fii ci biir réew mi suñuy doomi réew mën di ko napp ñu mën di ko yóbbu ci marché central yi ndax waa réew mi mën a jotaat li nga xamante ni mooy jën nationaliser li nga xamante ni mooy suñu yebooy ak kóoba euh, juróom-ñaari poñ bi mooy ñu daal ne accord de pêche union européenne accord de pêche union européenne dañoo gis ni saa su accord yi jeexee dañoo war a càmbar accord yi lan la ñu jural est-ce que am na ngëneel wala amul ngëneel lan moo ci yàq lan moo ci baax lan moo ci baaxul mais dañoo gis ni waa union européenne ñoom rek ñooy def càmbar boobu dégg nga daal koy jébbal ñi nga xamante ni ñooy suñuy état. ñun nag ñu demandé ñun suñuy suñu suñuy état ñoom nañuy càmbar càmbaral seen bopp bañ a sukkandiku ci càmbaru accord union européenne di càmbar accord yi lan la jural Sénégal est-ce que am na njëriñ wala amul njëriñ ci réew mi voilà ni balaa ñuy defaat beneen accord di signé beneen accord bees bëgg nañ ñu càmbar accord yi nga xamante ni deux mille dix-neuf lañ ko signé woon mu war a jeex deux mille vingt bi bëgg nañ état bu Sénégal mu càmbar accord yooyu dégg nga ba nga xamante ni ñu xam accords yi lan la ñu tuural dégg nga ci lu baax wala ci lu yàq balaa ñuy càmbar benn accord te bu ñu paree itam bu ñu ko càmbaree ba pare tamit ñu bañ koo def ci seen i tiroir ñu daal a koy publier ndax Sénégal transparent dañu soxla ñëpp xam accords yi lan la tuural réew loolu mooy juróom-ñaar juróom-ñetti ponk bi mooy euh, ñu daal di yokk. ñun ñi nga xamante ni ñooy acteur de la pêche suñu taxawaay ci bëre bi nga xamante ni dañu fay dogalee ci dogali napp ndax bëri na bëri yoo xamante ni lu ci mel ni commission consultative d' attribution des licences de pêche lañ ko am benn membre lañ fa am ak yeneen i commission yoo xamante ni commission dogalukaay ci napp gi la ñuy sàkku ñu suñu lim bi nga xamante ni war nañ koo am foofu ci bërëb yooyu ndax yi gën a mën a di impliqué ci li nga xamante ni mooy dogal yi am ci napp bi juróom-ñeenti ponk bi mooy euh, ñu fexe ba nga xamante ni jën yi nga xamante ni dañ ne jën la woo xamante ni day man day jóge ci réew mi dem ci réew mais jàll ca meneen réew ñu fexe ba jën yooyu dégg nga ñun réew ñu ko seet ñu am benn kuréel benn booloo boo xamante ni comme ni ko union européenne defee ñoom dañoo booloo di sàmm seen liggéey ñu tamit ñu fexe ba jéem a booloo ko waa réew yooyu di mën a sàmm espèce yi nga xamante ni espèce partagée lañ koy wax bay jël boo xamante ni day jóge ci réew bi jaar ci réew bi jàll ci meneen réew ba ca ñu fexe ba dajale réew yooyu yëpp ñuy am benn politique de presse ci wàllu jën boobu fukkeelu ponk bi nekk lu jëm ci wàllu pétrole xam ngeen pétrole bi ci géej gi la feeñ te bi mu feeñee ci géej gi dafa fekk ni géej gi dafa am ñu fa daan nekk mu doon seen i tool ñu fay dem di fa am seen i sutura muy nappkat muy mareyeur bi muy daal acteur de la pêche ñiy jëriñoo wàllu géej ci liggéey mais gis nañu pétrole yi plateforme pétrole yi tenn pétrole maanaam ci bërëb yi ñuy nappee fa fa la feeñ daal kon pétrole boobu di génn ñan lay gën laal ci li nga xamante ni ci wàllu koom mooy nappkat bi nga xamante ni tey moom foofu la naa am sutura kon pétrole boobu ñu ngi doon sàkku état bi mu fàggul ci nappkat yi loo xamante ni dégg nga tey ëllëg bu fekkee ni pétrole def na jéyee ci biir géej lu mel ni lu ñuy wax ay marée noire ak yooyu dégg nga euh, ñu Euh, dédommagé ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy euh, liggéeykat yi euh, géej dégg nga muy nappkat yi ak ñi ko wër ñëpp ci ginnaaw pétrole bi daal bëgg nañ ñu génne ci pourcentage boo xamante ni ci napp gi lay dem ci ay formation ak lu tàggat ci suñuy doom dégg nga tabaxal si ay école ay centre de formation voilà pour ñu mën a ñu mën ñu dem ba mëntuñoo napp ndax pétrole ñu mën a dégg nga ci yeneen i métier euh, fukki ak benn bi nag mooy euh, nag sàmmkat yi am nañ journée nationale de l'élevage dégg nga euh, ñun axlu nag bëgg nañ état du Sénégal mu jox ñu bis boo xamante ni journée nationale de la pêche lay doon bis boo xamante ni dañu ci màggal lii di napp fii méritoo nañ ko euh, loolu bokk na ci fukkeelu ponk ak benn bi fukkeelu ak ñaar bi nag mooy futur président de la république bi nga xamante ni dana ñëw fii ci réew bëgg nañ ci nu mu gën a gaawee mu taxawal loolu ñuy wax conseil présidentiel sur la presse ndax boobaa dana woo ministère yi nga xamante ni yëpp napp daf leen a concerné dégg nga am ñun napp yëpp ñu mën a toog daal di def benn ndëpp ci li nga xamante ni mooy wàllu euh, napp fukkeelu pompe bi nag ak euh, ñett euh, mooy ñu fexe ba nga xamante ni nappkat yi danañu xam lan mooy changement climatique ndax dañuy wax changement climatique dafa am espèces yi ci période bii lañ daan am yii ci période bee lañ daan am mais gis nañu ni dégg nga géej gi am na ay changement yu ci am loolu bëggoon nañu état góorgóorlu saytu ba nappkat yi am information yu baax ci li nga xamante ni mooy changement climatique ba bu ñu waree dem géej ñu xam ni war nañoo dem géej bu ñu waree noppal géej gi ñu xam ne dañoo war a noppal géej gi dégg nga loolu daal moo nekkoon li nga xamante ni mooy fukki ponk ak ñett yi nga xamante ni moo tënk coalition national pour une pêche durable muy napp bu sax dàq lii nag fukki ponk ak ñett yi euh, fësee na nañu gannaaw bu ko suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite organisation professionnelle pêche yi ñoom ñëpp ñu ngi teew bu ñuy wax pêche nag nappu saxaar ak nappu euh, pêche artisanale la ñuy wax gannaaw bu ñu ko signé ba bëgg nañu bépp candidat boo xamante ni da ngay laaj réew mi te nga ñu partagé la li nga xamante ni mooy charte bi nga xool ko ba ëllëg boo yoree réew mi nga xool charte yii te xam ni boo ci sukkandikoo napp bu sax daan dana am ci réew mi asalaamaaleykum